libération détenus politiques yi ñu ngi koy wéyal ci prison bu Rebeuss Sébikotane ak Cap Manuel altine ba léegi ay prisonniers yu bëri bàyyi nañ leen gannaaw ay weer ñu nekk ko prison ñu ëpp ci ñoom ñu ngi leen a teg loxo ci manifestation yu metti yi amoon ci mois de juin atum 2023 ñeneen ci ñoom bokk société civile ñeneen ñi di ay journalistes ñeneen ñi bokk ci parti bi di fa ñu ràññee ci Aliou Sané coordonnateur mouvement Y'en a marre Maty Sarr Niang Abdou Karim Gueye nitu dëgg ak Fadilou Keita ñoom ñëpp nag dañu leen a bàyyi te àtteew ñu leen ci mbir yi nga xam ne moom lañ leen doon toppee bokk na ci yee fitna ci réew mi bokk ci marche boo xam ne kenn autorisé wu ko wala di lëkkaloo ak ñoo xam ne dañoo njort ci ñoom ay mbirum terroriste diggante alxamis ak samedi lu jege ñetti téeméeri détenu bàyyi nañ leen ñu ñibbi seen i kër lii nag dafa bokk ci bëgg-bëgg président Macky Sall indiwaat jàmm ci réew mi gannaaw fitna bi nga xam ne juddu na ci bu mu jëlee ndogal ngir daax élection présidentielle yi waroon am ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février. beneen vague libération ñu ngi koy xaarandi ci la semaine bi di ñëw waaye ba fi mu nekk Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay kenn déggu leen ci.